dama xëy rek ñëw ni ko man daal nii ngay def di ñëw ci buntu jumaa ji di seetaan julli gi danga ko war a bàyyi mu ni maa ah, xam ni ko am parce que gouverneur bi ko daan def daf nuy won ni mënu coloniser yow nag combattre nga colonialisme kon nag bu fa demati mu ni ma dootuma fa dem ma tëdd rek ñuy ñëw ni ko kii def la yëpp kii sa prestige la ba a dégg moom la bañ a gis lii kenn mësuñu ko gis téele leen téele leen ba xol ba jóg ba xol ba jóg mu woo architecte bi defar jumaa ni ko defal ma benn tribune te architecte bi tubaab la assen dëgg ko fi yaman mu ne ko sañuma ko mu ko bu ma koy def ñu di ma rendi waaw kon sama tànk dootul déggu ma moom ku fay ñu rendi ma laaw waxuma ma tax du ma ko def mu mer daal di woo ma Lamine Dieng wax ko ko man Lamine Dieng jaaxle ñoom seet si ma yàgg man leen bu leen ci dugg digganteem ak Collé la Collé c'est un belge xam nga les Belges ils sont têtus man leen bu leen ci dugg mukk bàyyi leen ko rek comme wax na ko Collé mu gàntal ko yéen bu gën ci duggee rek yàq ñu bàyyi moo Collé ba mujj mu génn fi ba affaire mu sabalo bi ñëw ma ni ko ah bu ñaaree sama kan des ma ni ko buy ñaar rek sa bakkan di ci des parce que Moustapha xam naa ko maa ko yar mënul sax rey ganaar il est tellement généreux il est tellement gentil que boo ko reyloo woon ganaar mu lànk ma ni ko mais boo fa delloo ñii ñëw bi yoon ay anciens militaires la ñuy doon te dañ lay yàpp benn yoon nga jeex doo dootuma fa dem mukk bàyyi na yàlla xam na ko pour wax la ni looloo ca xëy na looloo ca nekk boo waree wax rek nga wax ndax li ma Lamine Gueye waxoon ni doom boo noppee rek àdduna tukki waaw boo noppee rek àdduna tukki